bienvenue sur la chaîne Mouhalim TV. Mouhalim TV est une chaîne d'information générale en temps réel. Pour plus d'informations, abonnez-vous la cloche de notification pour plus d'informations. benn waxtu di jot na ba tegal ñaar fukki simili fii ci groupe Mouhalim Info numéro ñi leen di bu baax di leen siyaar di nuyu waa groupe 1 groupe 2 ak ñiy topp ci yeneen groupe yi. tey jii gaawu fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru décembre ñaar fukki fan ak ñaar ci rakkaati gàmmu weeru wolof ñu tënkalee li ñu ci tam ci xabaar tàmbalee ko ci mbirum aji saar mii nga xam ne am na information yuy circulé di wax ne daal moom dafa war a wujjiwaat doyen des six ñu wax ne le 20 décembre bii ñu dëgmal war naa wuj demaat ca euh, kanamu doyen des six Maham Diallo ginnaaw ab convocation bu yees boo xam ne wooru na ko ko information la boo xam ne nag maître El Hadj Diouf mi ngi ay leeral moom daal nee na xabaar boobu yi moom wala information boobu ñuy wax ne aji saar war naa wujjiwaat ki nga xam ne moo di euh, doyen des juges moom daal nee na bu dee lu am na itam kenn notifié gu ko maanaam daal moom en tant que avocat Adji Sarr daal jotagut benn këyit bi firndeel lu ni moom nee na xabaar boobu yi daf koo gis ci kawtutee xabaar yi comme ni ko ñëkk ñëpp gisee rek benn kawtutee nekk fii ci Sénégal daal di koy publier waaye moom nee na ba fii amagul benn xabaar boo xam ne bu koy firndeel na ko Adji Sarr mii war naa ñëwaat wuy ji ki nga xam ne moo ndax nekk jàpp na ne loolu bu en tant que avocat des na ko ko notifié te booba léegi kenn notifié ko bu ñu sukkandikoo ci kawtu saa xabaar gi eh, nag kawtu saa xabaar gii ñuy wax Dakar Post moom moo ko eh, wax moom daal li mu wax mooy nee na Adji Sarr war naa wuy jiwaat doyen des six mardi le 20 décembre bi ñu dégmal eh, ginnaaw bi nga xamee ne Serigne Baye Mbaye Niass MC ñëw na fa ba déposé fa daal ay am mbir yu fa déposé loolu moo waral nag ginnaaw bi doyen des six daal di koy woolaat moom Adji Sarr di loo xam ne Dakar Post moo ko jàllale waaye kon mu leen ko moom xabaar bu ni mel amagu ci benn notification bu koy firndeel ne loolu lu am la muallim professeur Cheikh Omar Diagne ak Abdou Karim Gueye xurum xaax ñoom dañuy wey di def ci kaso bi ginnaaw liberté provisoire boo xam dañ leen ko sàkkul waaye attekat bi daf koo gàntal buñ sukkandikoo ci seen avocat ñoom nee ñu daal liberté provisoire bi ñu doon sàkku attekat bi daal nangulu leen ko ba tax sax ñoom nee ñu démb euh, bi dogal ba bu wàccee dan nañu daal di saisir ki nga xam ne moo di chambre d' accusation bu cour d' appel ngir daal attaqué dogal xam ne noonu la siis bi jël ndax jàpp na daal ñoom ñaar ñi war nañu leen mën a may nag liberté provisoire buñ leen soxla woon leen ñu ñëw bu buñ sukkandikoo ci côté xabaar gii di Les Échos ci ak fàttali Cheikh Omar Diagne mii ak Abdou Karim Gueye ñoom dañ leen a jàppoon ginnaaw faatuk imam Alioune Badara Ndaw yàlla na ko yàlla jéggal te doolu yërmandeem ci moom ñoom ñaar ñii kat ginnaaw bi imam noppaloo dañ leen a dégg daal ñuy wax publiquement ne état état bi ci boppam ñoom seen loxo taq na ci faatuk euh, jëm ju tedd ju baax jii di imam Alioune Badara Ndaw te nekkoon jàmbaar noppalu fan yee ci ginnaaw ba tax nag ñoom ñu dañu toog toog toppee li ñuy wooyee diffusion de fausse nouvelle maanaam daal joxe ay xabaar yoo xam ne euh, wérul loolu moo waroon ñu téye ci kaso bi waaye léegi nag war naa yàggu war naa yàgg waaye daal kon danañu wéy di fa toog kon ginnaaw bi nga xamee ne attakat bi moom dafa gàntal liberté provisoire bi leen doon sàkkul ñoom nag ña nga ca kaso bu si bii xutaan Mouhalim Info ba tey ci xabaar yi Mouhalim Info dañuy wax ci dossier Sweet Beauté muy cooy yi dox ci diggante Ousmane Sonko ak Adji Sarr ak gis-gisu Moussa Sène Absa moom mii nag ab réalisateur la di ab bu ñu miin ci réewum Sénégal waaye tamit ñu daal di koy miin tamit ci sous-région bi di yëngu ci wàllum cinéma moom wax na xalaatam ci lii nga xam ne moo dox ci diggante Ousmane Sonko ak Issa Sarr daanu ci ñëw léegi ginnaaw bu ñu présenté suñu partenaire bu jàmbaare bi bu am solo bii di waa daare mag ñi jàng du wees fas yéene taxawu lenn ci askan yi nga xam ne ñoo am leen daboon ci wàllum njàng ñu bëgg ko leen ci taxawu daare mag ñi jàng du wees loolu moo leen tax jug am ay panel nag yu am solo wut ay jàngalekat yu xarañ fas yéene taxaw askan wi ci yii may bëgg a lim koo xam ne da ngaa am lu la euh, fàddu woon ci nga bëgg a ci wàllum sa diine maanaam daal nga bëgg a mën a jàngal xuraan bëgg a firiji ba mën a jàngal xuraan mën na la cee taxaw ba nga mën koo def waaye tam koo xam itam da ngaa bëgg a firiji ci wàllum français mën koo bind waaye itam buñ ko waxee sax nga man koo xam wala buñ ko bindee nga mën koo xam wala danga ngaa bëgg a firiji ci anglais wala da ngaa fëri bëgg a firiji ci arab yëpp daara ma ngi jàng di wees dañu ciy yëngu bu la yitteelee mën ngaa jokkoo ak 201 35 88 78 201 35 88 daaree mag ñi jàng du wees seen ab sa di wax gis-gisam ci coowal viol bii nga xam ne moom la ñu wax ci diggante Ousmane Sonko ak Adji Sarr moom daal nee na li mu jàpp mooy lii benn mbir la moo xam ne daal mu ñàkk solo la maanaam daal mbir la moo xam ne daal dañu ko benn mbir mu ñu utiliser rek la dañoo jël benn occasion utiliser ko waaye ni ñu ko utiliser sax baaxut nee moom personnellement mosul xalaat. benn yoon mbirum viol bi ñuy wax ci diggante Ousmane Sonko ak Adji Sarr moom jàpp na daal mbir mii lim ci mën a jàpp rek mooy manipulation la te li nekk ci ginnaaw manipulation bi mooy yàq arrière maanaam yàq bokk yàq carrière benn adversaire politique te ñee li koy firndee loolu bokk na ci enquête bi ci gendarmerie def rapport médical bi nga xam ne médecin bi def na ko ñi nga xam ne ñoo jege Adji Sarr te nga xam ne ñoom ay nit lañ ñoo xam ne nit ñu crédible lañ bu waxee ci mbir war na leen mën a bàyyi ñoom ñëpp liñ ci wax dañoo weddi li nga xam ne moom laa Adji Sarr mi wax kon daal moom jàpp na lii yëpp kon mbirum caaxaan képp la moo tax musul xalaat ne daal viol bi ñuy wax lu am la ba tey moom euh, réalisateur bi waaye itam di ab euh, artiste moom message seen ab sa itam moom na itam daal am naa lu muy rékki trop bu ñu demee ba Sénégal mbir mu ñàkk solo mii daanaka jël ko otas ci la ñuy wax di ci xëy di ci gontu te mbir la moo xam ne lépp manipulation kase la nee na mbir mi niñ ko defee dara baaxut ci casting bi baaxut décor bi baaxut réalisation ni ko réalisé baaxut scénario scénario bi ni ñu ko tegee baaxut bu dee temps yi mi ngi ni ñu ko ni ñu ko baaxut mu jàpp ne daal lii yëpp ay caaxaane kasa la nee nag mbir mu mel nii àgg ci nag ba Sénégal takk ci ba fukki nit ak ñeent faatu ci daal moom jàpp ne daal mbir mi daal lu ko metti la te ay caaxaane kasa la moom seen Sène sax loolu mi ngi ko xam ne ci page Facebook am Mouhalim Info ca Kounoune benn chef d'entreprise ngi nii boo xam ne yàllaa ko dimbali waaye kon ay defkati ñaawteef daañu ko def lu day waar ñetti nit ñoo xam ne ay defkati ñaawteef lañu yor ay arme yu doy waar ñoo songu këru ku ñuy wax emu naam moom emu naam mii nag chef d'entreprise la nekk ca kunun ci début de semaine bi ñu génn waaye nag ñoom li ñu bëggoon day yàlla def na sutura sottiwul ndax bi ñu ñëwee ba tolloog fii nga xam ne moo di réseaux bi ba war xalaat daal yéeg ci kaw étage bi ngir attaqué suñ boobu yi ngir dal ci kanam kawam xëy na nangu lenn loo xam ne jàpp nañ ne yor na ko ci alal ci la leen nag gardien bi daal di bett bu leen bettee nag moom ci njàmbarte moom gardien bi daal di leen di euh, maîtriser ñoom sax bi nga xamee ne gardien bi gis na leen bu ñu sukkandikoo ci libération kenn ki ñoom jéem naa nag euh, wut ay pexe daal di doon tiire ci kaw loolu lépp nag ngir xëy na bëggoon a jàpp euh, sëñ bi waaye itam dëkkandoo yi comme yëg nañ ne ñoom mii gardien bi gis na leen ñu bëgg a tiital dëkkandoo yi ngir ñu bañ a génn loolu daal moo tax kenn ki ñoom daal di dóor ci kaw ci circonstances yooyu daal. ci la ñuy daal fexe daal ba génn daal di daw waqit kenn tegu leen gët waaye itam nee ngi daal yàlla baax na itam ba benn blessé euh, boo xam ne amu fa daal maanaam kenn amu ci gaañu gaañu bi brigade gendarmerie sàngal kaam nag ñoom nee ñu ubbi nañ ci enquête ngir enquête ki jëfi ñaawteef yooyu. ba tey ci xabaari Mouhalim info ab élève ngi nii boo xam ne ña ngi ko jàppe ca waay nee ñu ak 58 carnet de saafara indien maanaam daal mbirum drogue ci la ko jàppee dañ léegi ci yàkkara xabaar bi ginnaaw bu ma partenaire bii di librairie Xitma bokk ci sponsor yu fidèle yu Mouhalim info di ay jàmbaar di yëngu ci wàllum jaay ay téere téere yi nga xam ne dañ ko bind ci làkk réew mi di wolof wala itam yi nga xam ne dañ ko bind ci yeneen làkk ñu soppi ko ko ci wolof ngir nit ñi mën koo jëriñoo téere yooyu téere mel ni téere Cheikh Anta Diop yi waaye itam mbootaay xam ne moo mbootaay wax wolof di bind ay téere am solo boo demee fee ko fa mën a fekk bokk na ci téere yooyu euh, Muridullah ak tombi Serigne Touba yi ak yeneen téere yoo xam ne daal yëm ci wàllu woola yu am solo wala itam téere yi xam ne itam téere yi xadis la ñu def ko ci wolof yëpp mën daal ma nga fa waaye itam téere yi nga xam ne itam maanaam livre yi nga xam ne itam nit ñi dañ koy yittewoo moo xam muy livre français anglais wala arabe luñ ci mën doon bokk yittewoo boo dee da nga ko fekk incha allah waaye itam yëngu ci wàllum euh, kayit moo xam facture bars carte membre pour daayira wala pour mbootaay yooyu mi nga xam ne da ngaa amoon ab piis mu réer la nga bëgg ko récupérer boo demee ci libéré xidma ñu liggéentil la ko ci ni mu gën a gaawee waaye itam dañuy jaay itam lu ñuy wàllum antenne wifi fly box mobile orange yu am yu am doole yi waaye itam déco de TNT itam dañ koy jaay ñoom nag ñu ngi ci Dakar ak Touba bu dee ci Dakar ñu ngi ci boo weesoo rond-point euh, Sédima bu nekkee tubaa nag ñu ngi ci Darou Khoudoss marché Darou Khoudoss ci wetu station bi euh, boo rombee station bokk ci wetu pàkku ginaar yi seen numéro téléphone 77 696 16 16 70 696 16 16 kon dañuy wax ci xale boobu nga xam ne wax naa leen dañ ko jàpp muy ab élève ay atam toll ci fukki at ak juróom-ñett moom nag nee ñu mu ngi wéeg turu Xaadim Guèye moom day ay atam bëreegut waaye daal nee ñu dafa commencé daal moom dèjà xat mu ngi yëngu ci wàllum ah, sabre indien ndax moom élève bi kat nee ñu mi ngi sax classe de seconde fee ci la nekk ñu jàpp ko nag ca géejiwaay ngir mbirum yàmba police bu géejiwaay nag ñoom ñoo ko jàpp moom nag nañu doon doon nañ ko àttee démbu ca tribunal ah, flagrant délit de Pikine géejiwaay ci mbiru daal yëngu ci wàllum drogue gi ci aju ne ngi nag condamné nañ ko ñaari ati kaso bu ñu sukkandikoo ci Les ko moom mu joxe xabaar bi daal nee ñu moom mii jamono ji nga xam ne police ko jéem a jàpp sax moom jéemoon naa jéem rek ci daw ginnaaw bi tam mu tudd ci ay xeetam yoo xam ne daal nee na moom euh, li yor ñoom ñoo ko moom ndax moom bi nga xamee ne euh, police dëgmal nañ ko daal fekk mu am na xayram ci la daal gaaw sànni li mu euh, yoroon ginnaaw bi nga xamee nag moom jàpp nañ ko ci enquête préliminaire bi moom bi ñu ko laajee moom nangu woon na ne daal moom moom yi sa sa soyee moom moo ko yoroon waaye nag nee na moomu ko benn xayitam bu ñu wax xalil moo ko moom waaye taal waaye taal waaye daal moom moom waa ji ginnaaw bi nga xamee nag dem na ci kanamu tribunal bi ci baar bi nañ moom dafa changé version bi mu waxoon wax na daal moom mësutoon yor dorog li nga xam ne daal sànni woon na ko dara lu may ay dàll yoo xam ne daf koo jëndoon ngir doon waajal ak feet waaye daal du moom dorog la yoroon loolu mu waxoon nag loolu yi nag mu wax nekkul loo xam ne lu dugg ci noppi procureur la ba tax na daal ki nga xam ne moo di ah, procureur dafa sàkk ñu ñaari ati kaso waaye bu ñu sukkandikoo ci at texte bi ci kaw li ñuy wax mooy daa mel ne kon loolu yi moom la attakat bi dëggal ndax bu ñu sukkandikoo ci les échos daal attakat bi moom condamné na ko ñaari ati ñaari xam ne dana ko tëdd ci kaso bi moom ah, ah, moom élève bi nga xam ne nee ñu mi ngi nekkoon école mi ngi nekkoon ci classe seconde tudd Xaadim Gueye ay atam toll ci fukki at ak juróom-ñett muallim ab étudiant ngi nii boo xam ne dafa jaare ci opérateur bii di Orange Money nax ci ay nit ñu baree bari lu a toll ci douze millions francs CFA daana ñëw léegi càkkar ginnaaw bu sante suñu partenaire bi di waa Touba aviation tourisme di yëngu ci wàllum tourisme durable di jaay ay billets d'avion ci bépp compagnie man di bëgg assurance ci bépp anam location de voiture transfert d'argent moo xam biir réew bitim réew sans cambio da ngaa yor euro wala dollar ba ko def CFA wala nga yor CFA ba ko def euro wala dollar yëpp dañ ciy yëngu réservation d'hôtel itam dañ ciy yëngu seen numéro téléphone di 77 643 27 70 33 975 seen adresse email di ahmadou 94 arobas gmail point com ñoo ngi ci Touba route de Guédé boo dépassé balaa séeri Baye Mour lëy bala ak kër ba Mbàkke Kebe rahmatullahi alayhim kon dañuy wax ci étudiant bi nga xam ne def na lu doy waar lenn ci ay sénégalais étudiant bi nee ñi mi ngi wéeg turu CSB CSB ñang ñang la sant moom daal dafa jaare ci système informatique bu Orange ne daal daal di fexe ba mukk ci lenn ci ay sénégalais lu toll ci douze million francs fa ñu ma ci victime ñu war toll ci cent dix neuf yoo xam ne ñoom Orange ne la ñu nekk bu ñu sukkandikoo nag ci l'observateur moom waa gi ñu ngi koy toppee euh, escroquerie vol faux ay sas de faux waaye itam jaare ko ci wàllum système informatique moom mii nag ni mu daan euh, jaar ba mën a jël alal ji ci euh, clients yooyu ne nii nii la nii daan def moom nag waa ji étudiant bi nee ñu ma nga dëkk ca Thiès moom nag am na soxna ba am benn doom moom daal nee day jël appareil am rek composé ay numéro téléphone fixe nag lay composé su ko defee nag bu composé jot kenn daf koy xamal ne ko daal yow sa facture téléphone bi fayagoo ko la moo tax fayagoo ko gaawal dem fay ko wala ma daal di ré ma daal dagg contrat bi loolu nag mi ko daan def diggante 10 heures ak 11 heures ji nga xam ne ñi nga xam ne ñoo dëkk ci biir kër yi maanaam kilifay kër gi maanaam chef de famille yi ñoom dañuy dem génn dem liggéey léegi nag jamono yooyu ñu fay bàyyi duñ nekk ñoo xam ne ñu xaw a matière la ñu doon wala duñu xam dëgg-dëgg qu'est-ce qui se passe wala sax ay xel lañ cay bàyyi su ko defee nag bu leen wooyee ñoom ñoo ñi nag ñoom lay jaare fexe daal ba menacer leen jaay leen mbirum autorité ne nag lan moo tax fayoo sa euh, euh, facture téléphone bi gaawal fay ko wala ma dagg ligne bi léegi nag bu la foofu nag wax la ko nag ba nga tiit nag boo tiitee nag mu daal di ñëwaat léegi day jéem médiation na nag léegi garawut mën ngaa toog léegi yow da may transféré euh, fay gi temps la léegi yow transféré ma ko rek léegi bu sa kër bu seen waa kër ñëwee nga xamal leen ne ah, am na ko watoon doon bëgg a dagg ligne bi léegi yónnee naa xaalis bi soo ko defee bu la tiitalee ba nga tiit nag mu door nag média def médiation ak yow nga daal di koy yónnee xaalis bi nga xam ne moom nga war a fayee ah, facture bi jaaree ko par Orange Money moom daal bu ñu sukkandikoo ci enquête police police daal ñoom moom daal foofu doon jaaree nag ba nax ñu baree ba lu wa ci cent dix neuf victimes ki ñoom ñoo ñi nag victimes yi lu wa ci ah, fukk ñoom ñoo dem nag porter plainte moom mi nag doon nañ ko àttee daal ci mbir yooyu nga xam ne doon na ko def moom nag mbir mi nangu na tàmbi na koo def depuis euh, mois d'août atum 2022 ci la commencé woon ba léegi ab dogalub àtteem nag maanaam lan la yoon wax ci moom ñenn ñu ngi koy xaar le 21 décembre bii ñu dëgmal waa jii de daa mel na mas na maa woo kii am na ko mas woo ku mel ni de noonu la ma defoon de waaye nag moom yaakaar naa moom na ma ko def na ma ko def fekkee ne la ko ñu bëree a sotti damaa woo boo ko dama koy dagg gaawal. man ku baax defal ndànk man su may fekk may fay facture orange man laa koy jaay xam naa fay jaar <laughs> kon loolu ak yokk rek la ci woon Mouhalim info fanweeri migrant sénégalais jamono gi ña nga ci réew Maroc di fa dund ay jafe-jafe ñi ngi sàkku ci kilifay réew mi ñu dimbali leen delloosiwaat leen delloosiwaat leen ci nu mu gën a gaawee ndax sonn nañu ñoom 37 migrants sénégalais yi ñu boole ko ci réew Maroc ña nga ca fa ñuy wax daxlaa ca Maroc boobaa léegi war naa mat ñaari semaine ñoom migrants yi nag ñi ngi jóge woon Sénégal jaare woon ca Sowal duggoon ci benn gaal le 23 novembre bii ñu génn ngir dem ca Espagne waaye daal ñoom ci yoon wi la leen garde côte marocaine yi gis daal di leen di dëpp yóbbu leen nag ci benn kër gu nekk foofee ca Daxla bàyyi leen fa ñoom sax ne jot nañoo def juróom fan ci yoon wi laata garde côte marocaine yi di gis daal leen di nag dëpp yóbbu leen ci foofu ñuy wax dax la ñoom migrants sénégalais yi nag ñoom nee ñu daal ñoom bi ñu leen di jàpp du woon ñoom dong doon nationalité sénégalais kepp amoon na ci ay gambien amoon na ci itam yeneen nationalité waaye daal ñoom ñooyu ñëpp jamono ji ñibb nañ seen dëkk waaye ñun daal ba léegi dañoo seetaan kenn dimbaliwuñu ñoom nag ñi ngi naqarlu lu baax a baax comportement bi nga xam ne autorité yi nga xam ne ñoo di ñoo nekk ca consulat Sénégal ba nekk ca Maroc amee nañ ko ñi ngi sàkku état du Sénégal ñu dimbali leen organiser leen ci nu mu gën a gaawee ngir ñu mën a amal fi ñu mën a jaar daal ba dellu siwaat ci réewum Sénégal ñoom daal dañoo bëgg daal répartirement daal bu gën a gaaw la bëgg ci ak fàttali itam lu yàggul rek organisation internationale pour les migrants OIM dimbali woon na lu war a toll ci vingt neuf migrants sénégalais ñaar fukk ak juróom-ñeent yoo xam ne dañoo bale ko woon ci réewum Maroc war naa mat euh, ay weer ginnaaw bi nag ñoom organisation internationale pour les migrations bokk OIM ñoom leen ñoo leen dimbali delloo si waat leen réewum Sénégal ñoom ñëpp nag dañ leen a jëloon à charge ba ñu ba ñu accès ci réewum Sénégal kenn ku nekk dem ñibbi sa kesam kesay njaboot jaara ko nag ci benn programme boo xam ne. ñoom mbootaay xeer yi ñoo ko teg tudde ko euh, euh, aide au retour maanaam dimbali ñi nga xam mbokk bokk ay migrants la ñoo xam ne dañoo bëgg a ñibbaat seenum réew ñu dimbali leen dellowaat leen ci programme boobu nag ci la waa OIM jaaroon ba dimbali lu toll ci vingt neuf migrants sénégalais ginnaaw bu ñu defee ay weer foofee ca Maroc waaye daal ñoom 37 yi moom nee ñu ñaari semaine nii yoo xam ne am nañ ko foofu du dund ay jafe-jafe sonn nañu lool ñi ngi sàkku kilifa yi nañu leen dimbali ñu mën a delluwaat seenu njaboot ndax xat ci ak kër lañ leen téye foofu ca bax la ndax la te seen moroom yi migrant yi na dëkk ci yeneen réew seen i ah, kilifay réew dimbali nañ leen ba ñu dalaat seenum réew muallim yëpp ca réewum Mali ñaari policiers yu bokk ci MINUSMA la ñu fa faat ca attaque boo xam ne ña ngi ko amal ca Tombouctou ñaari policiers yoo xam ne ay doomi réew yu Nigéria lañu ñoom nag ñi ngi ca réewum Mali jaare ci mbootaay gi ñu wax mission des Nations Unies au Mali ñoom démb ci ajuma ji la leen faat ginnaaw ab boo xam ne amal nañ ko ca Tombouctou nekk ca bët gànnaaru réewum Mali ñoom day dañ doon amal patrouille maanaam daal di euh, génn di gëstoo ko ci aju daal ci lool yi nag ci la daal benn def katu ñaawteef daal di jekk-jekk rek tiire ki seen euh, kaw ba faat ki ñoom ñaari nit jamono yi nga xam ne ñi ngi ci mbedd di Tombouctou yi di wër def kati ñaawteef yi ci la benn waay daal jekk-jekk rek génne armom noonu nag ba tey kenn xamagul moom mooy kan tiiru siira ba ko awal moom leerugut daal di génne fetalam rek daal di tiire ci kaw ñi nga xam ne ñoo di ñu doon wër noon doon amal patrouille ci la faate nag ñaari policiers yi nga xam ne kenn ki euh, góor la kenn ki di jigéen ñoom ñaar ñëpp nag ña nga bàyyi ko woon ca réewum Nigeria am na itam yeneen ñeent ci agent yooyu nga xam ne ñu ngi ci mbootaay googu di MINUSMA ñoo xam ne am nañ ay gaañu gaañu kenn ki ñoom sax gaañu gaañu yi mett na lool ñoom nag bi ñuy daw ñoom def kati ñaawtee fi nag ca la ñu dajee nag ak beneen patrouille boo xam ne force armée malienne ñoo koy defal ñoo koy def ñu daal nag jokkalante ay ay bal daal di jàmmaarloo jàmmaarloo yi metti ci cappaandoo ko itam sax nee ñu itam beneen soldat malien itam faatu na ci ginnaaw bi nga xamee ne dañu ko dóor bal di doy waar loo xam ne ma nga xew ca Mali démb ci ajuma ji Mouhalim manifestation yi ma ngay wéy di am ca réewum Pérou ginnaaw bi nga xamee daal nee ñu ka nekkoon président duñu ko bàyyi jamono ji dañu koo téye cour suprême moom moo wax daal ne ah, kii di Pedro Castillo day wéy ji nekk ci loxoy takk der yi kenn du ko kenn du ko bàyyi moom mii nag ñu ngi ko jàpp ginnaaw ba ñu ko destitué ci bopp réew ma parlementaire ya ñoo voté ab ab jëlee ko ci bopp réew ma bokk na ca nag la ñu wax daal ne ñu moom daal problème mu xel daf ko am loolu yi nag nekk na loo xam ne waa réew ma ñu bëree bëri ki ñoom na neexu leen ña ngi koy naqarlu surtout nag ka nga xam ne moom la jël def ko président nga xam ne moom moo toppoon ci moom. réew yi bare bare nag ci àdduna bi itam ñu nekk ci wet googu yi ña ngay jàppale président boobu bokk na ci Argentine ak Mexique ak yi ci aju manifestation yi nag ma ngay wéy ba jamono ji xayma gun nañ daal toll ci 15 morts yoo xam ne am na fa fukki nit ak juróom faatoo gun nañ fa ñoom ñëpp nag di jàppale daal président bi nga xam ne mooy Pedro Castillo mi nga xam ne dañu ko daaneel moo nekkoon président bu réewum Pérou Mouhalim Mouhalim Info kon jërë ngeen jëf li ñu amoon xabaar jeex na sant baax di gërëm nag ñuy topp ci yeneen groupe yi Touba Visuel Mbacke Kadior TV association sport du Sénégal comité directeur no stress bil ihsan waa maqama production waaye itam waa Silatu Rahim info ak ñeneen ñëpp ñi xam ne itam ñu ngi topp ci groupe Mouhalim info wala Mouhalim info di tatan ay xabaar di wax ne seen colté mooy sunu sakk ñu ngi leen jox di déggee ci kanam bu ñëwaatee na xabaar gi tënkal leen ko wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu